li safinatan bi waaye bala nuy def rek dañuy jiital kilifa gu baax gi nga xam ne yàlla may nañu ko muy sëriñ Muntaxa Mbàkke suñu borom yàlla guddal aw fanam kilifa nag boo ci amee kilifa ga ca da nga ko ne war a kat yiw te jàpp ko te téye ko boo ci amee ga nga xam ne sax gënu te yàlla nattelu ko waruloo def lu dul da nga koy jiital te jàpp ko rawatina nag ku gën ku baax ku mel nii nga xam ne moom aw turam rek lu nduru muy al muntaqa di ku baax ki di ku sel ki di ku set ki nga xam ne moom mënul def sax lu dul wax aw yiw ak jëf aw yiw xamul it lu dul lu baax te lu baax rek moom mooy gilli ca moom ndax matt ne tooke jam yor rek lay saxaar moom ab lewetaay la yàlla bindu ci moom akuk baaxaay nu ñëwoon nag di ko siyaar si ànd ak mbokki taalibe yi indi woon nag sunu àddi yi ji nga xam ne lenn la rek li tàmbali ci jëf ji nga xam ne moom ci la nekk ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi jëm ci université bi ñu ñëwoon ci di ci barkelu fas yéene waat it ne àndante kook moom rek àndante kook moom ni ma ko waxee léegi. loolu nag la ñu ñëwoon it it yàlla defit baax gu nekk ci moom ndax fee ñu toog di borom xam-xam bu rëy rëy ndax indil nañu fa xaddis boo xam ne ci wax yu yonent bi la indil ni it jëflante bu baax bu rafet boo xam ne moom la lislaam di jëflante loolu nag ba fi mu nekk nii moom loolu rek lay wéyal te loolu ci la nekk kon nag loolu du ma defit lu dul mayit ak ñi mel ni man ñëpp nu pasteefu rek te woy ci ay ndigalam ndax jamono it ñi mu melit wëreesul nit sa kilifa nga dégg ndax ñun leen xam mooy sëriñ bi li mu digle rek ak li mu bëgg bu diglee nag ca tool ya wëreesul xam ne foofa buñ demee aw xeer la wala gannus la wala nooy na wala daa fanaane taw ñun daal nañ ca dem di sàkku ngërëmam ndax moom mi it ku xool ci moom fi mu jaar rek lépp lu mu am rek ngërëm la ngërëm la ku fi jaar ji sëñ Touba bu ñu jëlee lim bi sax ñaari des koy gàttal lool waaye man rafet na njort sëñ sëñ Modou Moustapha ba ndëgëni moom tekkiwul la xasaayam rawatina nag magam ju baax ji fi nekkoon di sëñ Moustapha Basir ku ne gis ni mu ko toppee woon ak ni mu kon loolu ci biir kër gi muy li nga xam ne barki démb maa ngi koy wax ci màggal gi ne sëñ Touba bi muy jàngale ci tasuuf dafa njëkk a wax ci benn fànn ne bala ngay xeex sa nooni bitti ba am ca ndam da ngay xeex sa nooni biir sa nooni biir nag mooy sa bakkan àddina ak banneex ak duniya moom mi ku ko gis rek xam ne ci loolu ci la mën a nekk mu nekk nag koo xam ne man dama koy xoolee kenn ci xalifa yi jaaroon ci lislaam ku ñuy wax Omar ibnu Abdou Aziz lu mu gënoon a dund rek da nga daan gis ci moom ay jeexital yoo xam ne saa bu xëyee di gën a jeex di gën a tuuti di daw àqi jullit yi bëgg lu neex ku ne jaral na ko jullit bu taxaw sax mu tab mu tarbi la sëñ bi boo ko xoolee rek gis ne ginnaawal na àddina ba mu jeex tàkk te loolu xëy na ni mu ko waxee léegi am na ci fànn goo xam ne nee na doomi soxna yi rek ko mën a xam kon nag loolu noo ngi sant yàlla bi nu yàlla mayee kilifa gu baax gu mel nii kon nanu laxasu te wéy ay ndigalam te bañ di yëkkati kàddoom bañ di ko merloo te doon ay taalibe rek ndax wax na ma ko léegi ndax loolu yi la sëñ Tuubaa bi loolu rek la àndante ko nag suñuy maam àndante ko nag suñuy baay kon loolu rek moo war a wëy ci loolu rek la ñu nekk. gannaaw ba loolu wëy mu joxaat ma ndigal li nga xam ne mooy ndigal li jëm ci gàmm gi nga xam ne gàmm gi sëñ Saliou moom ma ci joxoon ndigal moom moom la ñëwaat léegi feddaliwaat loolu it te at boobaag ndëgg ni mu nekk fit saa sune mu koy feddali. kon nag maa ngi soññi taalibe yëpp ci gàmm gi nga xam ne man sama boppit bi ma ñëwee di sàkku sëñ bi dafa ma cee soññaat kon soññaat naa ci ñëpp nu waaj ko nañ ko daan waaje fas yéene dundal guddi gi ca nañ ko daan dundale gàmm gi nag ren dina def ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci bi ndigal li tàbbee nu koy doxal ba ndëgg si kon nag maa ngi woowaat mbokki taali bi yëpp ci ginnaaw ci ndigal ci kër sëñ Basiiru Mbàkke gi ci Daaru Minam maa ngi woo taali bi yëpp ak fu jullit nekk rek nu bokk ko dundal ko la ma ci sëñ Saliou daan waxit ne dana ñaaw lool ci ab jullit guddig yonent bi nga ne wattu wattaaral jënd koy nelaw kon nan yàq suñuy nelaw ngir guddik Seydina Muhammad jërëjëf li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna